te kii ba tudd mooy def bon daal daal. sama waa Instagram maa ngi def promo rek Instagram def ma sax maa ngi. ah tapis vert. da nga daan dox nga dox problème bay. problème bay dégg naa dox deux cent. deux cent mais police amul fii maanaam Mbengue Seye Abdou Mbengue. ah non kii maanaam Mbengue bi la ko dugal 500000. maanaam Mbengue Seye Abdou Mbengue Abdou Mbengue nee na yow nee na yow ah. déglu gi Sadio Thiaba ji. maanaam Mbengue takkuloo Abdou takkuloo dafa ndaw nga wër di fóot naan fet fet fet fet fet fu réew mi toll. moo tax ma ne ko maanaam Mbengue neexul leen aw. waaw wallaay kenn bañu ko. lu laayee laa. woo ma maanaam Mbengue. ndeysaan. man ni yaa ma bëgg. ndeysaan eh am yaa ma bëgg eh ay ba gantala. ayba gantala mara meng man yaa ma bëgg am yaa ma bëgg ayba gantala yaay seere abdu abdu nene yawa nene yawa nene yawa te ñam fa dëkkee sànni caa dëkk nena fan nena fan mais Ouzin et puis fii ci tapis vert manap manap manap léegi ren nee bi may orange money léegi huit cent mille. ñaata. huit cent mille moo may woon. waaw waaw ana mën a meng. eh xam nga dégg ko huit cent mille. nekk tapis vert dinaan jus vert. maa di tax am naturellement. waaw naturel. chef fifty ah. chef fifty Amadou Gueye Ndioro. su fekkee su fekkee ndal ndal ndal ndal bi nga xam ne kàllu xam nga lay joy si adna mala mak wa mala gën ci mim rew dara mala gën ci mim rew non non jël say mbokk jël wa ndal jël ni ne bandi ya ndar indi len Dakar na ngi ne ñaari booy yi nan lañ def ah ak këfkatu xale jigéen moom dégg naa. nay taw ñii ñi la ma lay yegg zaman maax. zaman maax. zaman maax.

officiel àdduna di la suivre Ouzin ba suur Ouzin desal desal say desal non seulement duggoo may nga daal ah? duggoo may nga de mega mega yàlla daal du ay caaxaan tapis vert kenn moom su mi toll baa kii la jël ak Amadou Gueye Ndioro fifty nga da ngaa baax waaw oui